waxoon na leen ko yéen a ngi nag li nga xamante ne rek moom mooy seen deuxième partie émission tey nag ñu daal di rek gën a yaatal ah ci ñaareelu pàcc bi ci li nga xamante ni moom mooy seen cas waaye xam nga ne waxoon naa leen ko si njëlbeen bi plateau bi dañ ci ànd ak ay ndaanaan ndaanaan ñoo xamante ne ni kenn dootu leen présenté ki ci mel ni ramatulaay Ramatoulaye tey day ànd ak ñoom ci deuxième partie bi waaye nag seen xarit seen frère seen doom ndey ki nga xamante ni gëj ngeen ko gis suñu ay plateau waaye nag euh, dañuy ne rek lim ñu doon préparé moo diis doy waar garaaw ba garaaw na boo xamante nii waaw faaw ma def ko nii il faut mu ko dugal genre moo yu mel nii ndax moom dafa doy waar. ñu koy wax njàmbe xam man sama dara simple sa dara simple loolu. man nee naa la du ma du ma détaillé gursi si laaj. ëpp na macha allah si laaj. waaw nag xam bis ni ngi tey dafay dugg bëy. xam mm. nga bëy ci naaj <laughs> ah sama xarit tey di ma sax daanaka mbay mu yëg ay weeram. ñamba da may déconcentré bal yooyu man seen duo daf may neex seen duo duo de choc la damay déconcentré ah, ñamba moom bu ah, si plateau bi damay reetaan moom jeex te loolu laay bañ. waaw ah, mais Maya looy duo fan yaa ngi mel ni góor pot de. en tout cas li mu ci mën newoon naa leen bu ñëwee yii la may def ak yeneen kooku nag di njàmbe njàmbe borom Roubé Time nee naa leen kenn du ko présenté te li nga xamante ni moom mooy bis ni ki tey defar na nag le grand retour de njàmbe show njàmbe borom Roubé Time laa koy wax dina ñëw ak ñun ci ay thématiques yu am solo ñu yaatal rek ci seen deuxième partie seen cas ma nuyu rek Ramatulaay suñu jigéen suñu ndaanaan waaye li njàmbe wax du ma ko weddi de. tey Daara Mboy la. bu leen tax mu <laughs> ah? <laughs> benn coow bàyyi leen yooyu. tey aussi si retour ñambe bi. Mm. Ah? a ngi nii mel ni njambaanu <laughs> bi du yomb de ah? macha allah plateau sax ak ni ma ko gisee nii. ah mënta ñaatu. ah kon macha su ko defee xam naa. internet yi aussi dinañ ci kontaan bu baax a baax ci sa retour bi du coup ñu dem. ay ca am na solo lool xam naa ni suñu frère moom moom dinañu rejoindre ci kanam tey moom nee naa leen macha allah plateau bi dana doy waar comme ni ko ñàmbee waxee rek ñu nar a waxtaanee nag lu ama am solo. Mm-hmm. mooy euh, maanaam divorce yi gis nañ ko unu majorité bi ñu koy reprendre nit ñi ñu ngi ci wax ci réseaux sociaux yi mu nekk loo xamante ne nag ah mu ngi jël ampleur kat ci li nga xamante ne moom mooy société sénégalaise bi xam nga nag loo xamante ne ni tàmmuñu woon di ko gis bu demee ba bëgg am doole rek mhm. jaar na rek ñu def taxaw seetlu waxtaanee ko partagé ndoog ak ñi nga xamante ne moom mooy suñu mbokk internet yi njàmbe 10 hmm. millions yeeg 30 yi au bout de 3 mois six mois ñu dégg tas na. Mhm. lu ko waral. non balaa boobu nag damay maa wax heure sama xarit sama jigéen <laughs> ah, waaw waaw waaw waaw asalaamaaleykum fu ne ni sëy na. day jaadu. muy bee gaas. Ah, gaas waaye gaas. Ah. boo ko asalaamaaleykum sëy dëgg na heure ménage fu ne ni mu ngay pàccal di saf safal jël ay maam fa asalaamaaleykum elle est elle est dangereuse. elle est très dangereuse comment yërëm jëkkëram. nee naa ko dugg nga ci lawbe boo xamante ni non dina la dina la sang ba yóbbu la biir géej. wallaay bomb la pax. Ah, mais loolu la ñuy xaar ci lawbe tamit lawbe moom bu ko wax ay bagages ah sama mbokk lawbe ay lawbe laa yërëm. waaw li mariage bi neex neex neex mm-hmm. neex neex. Mm-hmm. lu sëy neex neex yéen ñaate bëgg naa dégg seen heure ménage dëgg fa yàlla xale yi lamb lañ waa ah, ku lamb nag yaa dëgg neexul loolu duñ ci toog célibataire yàlla na di maa ngi gis maa ngi ci ginnaaw waaye duñ leen tontu. non ñii dañoo lamb. dëgg fa yàlla avis avis avis de avis de lan koy waxatee sax boo ñaar ñii lu waay am am jabar fu ñu. moo ñun loolu dañ ci débat ñun suñu mariage fii lañ koy dëgg boo ñu boo ñu kii sax war nga ko def ah, euh, aux enchères ah, ah? def ko privé vente privé vente aux enchères war nga ñoo teg ci plateau bi dañuy yekk lu a ko déggandoo ñoo ko gisandoo duñ ci débat dëgg la ton xam nga dëgg fa yàlla mariage yi nag man loolu dama cee mm-hmm. mm-hmm. ah te bis tamit maam da koy bisal ba mu bisu mm. donc mariage yi gars yi maam nekk di dugg di sëy def maam heure ménage di photo loolu dafa xew ku fi mayal fu ne sa jabar maanaam iPhone 12 wala iPhone 11 bul takk. Mm. parce que sinap bi fa la gën a leeree. Mm-hmm. photo yi fa la gën a leeree boo amul bul takk jabar. mu lu ma lu may wax xale jigéen mooy kontaan naa ci nigéen yi sëy photo wu leen sàjj woo leen ñu photo leen benn heure ménage def seen ay. ful njàmbe nag nañu waxante dëgg nag njàmbe sëy la ñu wax. maam yi maam yi sëyewuñu woon nii. waaw yow ah, maam yi ba déggaan diw tas na bala nga koo déggati déwén. waaw parce que mais wow na tooy na xef xippi ñu ne sëy ba tas na. réseaux sociaux yi la ñuy takkante réseaux sociaux du yàgg tamit loolu tamit foog ñu waxoo. fii maam ku fi sëy maam trois mois la neexul génnaat ci ba mu set wicc jël sa appartement def lu la safal yaa ngi wesu faa di daagu Ramatoulaye yaa ngi seetaan njàmbe muy influence xale yi ci lu influence ma xale yi de li am laa leen di wax yaa ngi yaa ngi koy seetaan li am laa leen di wax en fait may déconcentré Maria wax <laughs> moom mais mais ñambe ñambe mm. mi daal man mënuma ko comprendre mm-hmm. ñambe yow li ngay wax nii est-ce que au fond de toi looloo ci nekk. man de yàlla xam na ni. ku fi mhm. sama xarit jigéen ñu fi sëy da tas bari mhm. nañu te ànd naa ceeg ñoom góor ñoo soof. ñambe léegi xarit bu jigéen nga wax est-ce que sa doom bu jigéen bu defoon loolu dina la neex. waaye sama doom bu jigéen sëy réseaux sociaux sociaux lu mu tëgg dina ko tas. Ah. ma ne. Mhm. kon naa léegi yow man bu ma la déggee maanaam sëy yi. dañ ko tënk tellement ci réseaux sociaux ci réseaux sociaux nga gisee ku jigéen ki ci ngeen di doxaanante ci nga koy nobee ci ngeen di sëy waaye tamit ci ngeen di tasee ma ne. Mm. li ma wax dama ko bëgg a wax ca kaw. képp ku fi gis maam jigéen ci Instagram bi. Mm. maa gis ko ci Facebook bi wala Viber wala Skype wala PowerPoint yooyu di génn. <laughs> ah PowerPoint. waaye jàppal ni maam sëy boobu noonu du gudd fan. tamit dëgg fa yàlla dafa xew moo du wax mu mel ni semis yëre bi ma soloon daaw la xewoon ma soloon indiwaa ko ren kon fu nekk ni xewi na xale bu jigéen ak xale bu góor bu fi bëgg na si réseaux sociaux jàpp leen ne 3 mois bu ko séyee sa loolu bénéfice yow daal loolu nga gis. loolu laa gis. waaye léegi 10 millions yeeg kii 15 millions yu ñu def ci mariage yi. loolu xam nga nit ñi moom ku neex fen say fan. ma fi ku fi ne may ne ko 15 millions. artiste bu mag la fii Sénégal. ma toog ma toog min ma doomu yaay yàlla xam ne ne aw ma ne ko mais publier waxal 15 millions lañ ma may. yaa mais loolu loolu doy waar la mais Ramatoulaye loolu lañ ko wax mais loolu dafa garaaw. mais imagine influence boobu mu def ci ki nga xamante ne tey dañ ko bëggoon may benn 500000. mu tëb dal ne ko laal. Mariam euh, situation bi doy na waar trop. Eh, ñambe je pense que lu muy wax nii. Mhm. ñambe rubakat la bu leen ko faale bu leen ko ah, tontu. loolu am je ne pense pas que loolu noonu c' la meilleure solution. Mhm. Euh, je pense que fu ñuy commencer mooy ci parents yi. Mhm. Euh, Mariama parents yi ñooy teg pression seen doom yi de telle sorte que. Mhm. après dañuy dem dugg ci loo xamante ne sëy yu yàkkamti la mbete ñu nekk course aux un moment. ah doy na waar. yi léegi dimanche yi seetlu lu statut yi. Mhm. yëpp presque ay mariage ménage heure bu jàllee lan lay doon euh, le jour le jour ji. Mhm. say xarit dinañ ñëw say mbokk dinañ ñëw et tout. di nga toog si diggu la snap. naan waaw kay maa ngi nii madame diw mu jeex. bu jeexee ku nekk mm. ñibbi këram bàyyil ak say problème bonjour les problème c'est là que tout commence donc euh, ñun jigéen ñi nañ delloo si suñuy xel mm. nekkul parce que Mariama c'est ma copine elle s'est mariée donc je dois forcément me marier mm. wërsëg motut wërsëg yi tolloowuñu yemuñu yemuñu tu vois Mariama mën nañ ko ñaanti jëkkëram may ko 10 millions man mm-hmm. ñu ñaan si ma may ma benn cinq cent mille Mariama mii ñu may 10 millions bu duggee ci biir sëy bi. Mhm. du ci am dara. 15 jours sax lu bëri na. no non c'est pas parce que mën na faa ah, aar yàgg. yow fan lañ ne ma lan doo am dara. xam nga mais fan lañ bind si sariya rek fan lañ bind sariya rek. sa da koo def pour. Ah, sa genre ñoom Mansour genre ñoom euh, Binta nekk si mbedd mi naan ah jëkkëram de may na ko 10 millions. mais bu jàllee si biir di ngeen souffrir boobaa boo leen añee doo leen reer boo leen dékkee doo leen añ comprendre nga mm. différemment ak koo xamante ne peut-être dañ ko may benn cinq cent mille mm-hmm. mais jëkkër ji lu mu koy lu ma koy defaral si suuf mm-hmm. moo gën a euh, euh, kii am ampleur que lu mu mm-hmm. koy defaral si kaw donc ñi ñi nañ bañ Ramatoulaye bi Ramatoulaye foo nga nangu benn affaire amul fenn fu ñu bind ku ñu may 500000 da ngay heureuse. non non non binduñu ko fenn. non non non non non non non non non non non non non non mbirum maanaam sëy maam sa Ibra italien la commencé jamono bu Sénégal di moodu moodu moodu moodu dañ na fekk booy temps nangu seen ay jabar takk leen sa Ibra italien la commencé mm. ñuy dox di dox di dox di dox di dox ba jamono ñëw ñu may jigéen maam ci 10 millions ndax maam jigéen ëpp na maam 10 millions ne waxante dëgg mais néewuñu 10 millions yooyu noonu ma ne fu nekk jigéen moom loo ko may doy ma ne jigéen bu ko may bu la mm. mayee 500000 génn ne may nañ ma maam 12 millions. non ah. non jaru ko jaru ko jaru ko. <laughs> sëy léegi sëy léegi dépense la. parce que foo nga woo Thiaseck ma defal la jàkkaarloo ma defal la jàkkaarloo. maa nga woo uh-huh. Sidiou ma defal la jàkkaarloo. ñambe nga fële ci loolu mel ni ku amul toogal sa place. xale yi taawul maam dañuy def maam Pancago def ay an def ay fanta loolu fenn la laaj. <laughs> ma dégg naa fi ñu ne maam benn femme. may ne ko uh-huh. maanaam dëkk yaayam jënd ko 365 nuisette. Uh-huh. ku ko fi waxoon. waaw fii de lañ ko gisoon moom. fii lañ ko gisoon 365 nuisette. waaw waaw benn par jour benn par jour. borom doole koy def waay. ma ne bu leen see see mu dóor la def la lu bon te doo ci mën dara ku la may 5 francs bañal. ñam deux cent mille bañal. cinq yow sa compte bancaire dis na rek yow. j'espère bien que ci ñuy maye dix millions quinze millions ngay bokk yow. damay maye ba maye lu ma xamante dëgg te de dix millions quinze millions amul benn solo si t'es pas heureuse. am na ci solo sa ménage. si si te ba la nañ ah, xool ba nañ ba. est ba daal moo lay. léegi baal baal ñu gérer ko. ñu gérer ko ñu gérer ko ah d'accord boobaa bis ba bu jaaxlee loolu la di dundee. Ah, d'accord ok kon yow loolu la tax. loolu daal c'est une mauvaise man Mariama je ne suis pas d'accord du mm-hmm. avec Niambé mm-hmm. parce que lu muy wax ni moom il réfléchit dans le court terme. alors que mariage dafa doon loo xamante c'est mm-hmm. à vie. loo xamante mu naqari mu metti. yow sëy dagal na tas dagal na sëy dagal na tas dagal na kañ nga gëj a dégg mariage boo xamante ne a duré quinze ans. vingt ans vingt cinq ans loolu déggatuñ ko ak suñu génération bi loolu suñu ay maam ñoo amoon sens mhm. boobu noonu mhm. mais ñun ñi sens boobu amatuñ ko on na plus chance boobu noonu amatuñ ko et mhm. c'est désolant mariage dafa doon loo xamante ne c'est sacré avant balaa ngaa marié wu parents yi dañuy def démarche yi fii jéem a wër xool xool xool bu mu leer balaa ñu siy duggal seen doom mais léegi il suffit que mu leer leen ni eh ñambe entreprise boobu lay liggéeyee ah bon d'accord ok moom sama tool bëgg dama ko koy may transitaire la ok douanier mi wàcce ay douanier la ok doomu waa léegi ñaan la l'argent ne nous léegi tey jii ñu ngi ci société bi ah te ñoom yàlla xëy na ni euh, def na seen loxo jotu seen ginnaaw yow nekkuñu ay douanier ñenn ñi ay dawkatu charrette lañu mm. ah ñooñu samay xel la moo tax ma ah. sañ leen tudd ñeen ñi ñu ngi ci marché yi di jaay ay ambulant lañ te ñu toll ci takk soxna yëkkati li nga xamante ne moom lañ astuur bi nga ne moom lañ jot a dajale am ko mhm. ñëw yóbbul ko benn xale bu jigéen bu ñu am yaakaar ni kat ah kii kat buñ ko joxee lii yàlla dina def euh, dina leen ko nangul mhm. ñëlee leen ko mhm. tey jii ñooñu tey jii boo détourné seen influence yóbbu ko ci ñi nga xamante ne ni ñoo yor ay san ay xaalis ay carte bancaire yor ay auto léegi ñooñu nu ñuy def njàmbe boo demee marché dangay xool maam li sa xaalis lu mu toll nga jënd ko boo demee marché yóbbu maam ndugg njëgu deux mille da ngay jënd njëgu deux mille. mais fekk xale bu toog yor ay ancham def maanaam xef sëba. mais ñambe yor yor fa moom. extraordinaire nga bëgg a dugg toog boobu ngay wax yor ay ancham mel ni ko neex. ah waaw xeex tatuwee fépp bët fépp euh, loxoom jotul fenn. Mm. amul loolu sax loolu amul. appartement dafa xew kenn dama sëy di kër goro. nañ wax de dëgg dañ lay tàgg nga dem si appartement bi sëy toi et moom mari et le sien moo xew mënu fi signé te looluy dëgg ah dañ ñoo sonal góor yi dañoo sonal. sonal léegi toi et moi. moo tax léegi sëy yi trois trois mois lay lay lay durer. ku nekk dem yoonam malheureusement c'est ça. sëy dëgër na tas dëgër na loolu noonu c'est c'est pas la bonne solution en gis nga loolu lañ commencé duggal ci seen bopp yi moo tax léegi sëy yi dematuñu feeñ. divorce yi bëri na en tout cas vraiment désolé boo demee tribunal instant bi. mën nañ la wax ay ay ay ay ay plus de trente cas de divorce. plus même xam na leer na ma ni ñi fa nekk bu ñu may dégg actuellement. ils vont se dire que non lii moo gën a ndaw ci lu ñuy. lu ñuy traité ci ay cas de divorce et c'est désolant. xale jigéen ñi nañ delloo ci seen xel. nit ñi dañuy dugg si lu ñu mhm. mënul. Euh, kii nu mu tuddati alal taxul ñu sëy. Mhm. ci la bokk de. sëy daal mhm. la. ak nga bëggantal ki nga nekkal. tout simplement. ay ay may nañ ma un million deux millions trois millions sax. Ramatulaay Ramatulaay Ramatulaay yow sëy te yàlla tax. yow say parents dañu investir ci yow. fay la école nga jàng. da nga toll nii Ramatulaay doo dugg maanaam fi Samba Boy. tey waxante dëgg ci Samba Boy. ñu waxante dëgg kenn ñaanul yàlla. dugg ci Samba Boy. léegi yow lan nga tuddee Samba Boy lan nga tuddee Samba Boy Samba Boy mooy mooy ku ne yàkki ni yasan nanguwul xëy nanguwul gont kooku Samba Boy la mais kooku taxul ñuy wax jàmme mais ki nga xamante ne mi ngi def effort bi au moins waaw ku def effort nga jëm mi ngi def effort voilà ma sama doomu jigéen ñambe du ma ko may maam koo xamante ni dëgg fa yàlla man munoo maa may dara. man daal lenn laay wax. nañuy jiital mbëggeel bi loolu intérêt bi parce que gis nga xaalis bi ñuy gis luy jeex la. Mm. ñambe mën na mën ngaa sëyi yàlla def ni yow nga doon benn milliardaire mu ñëw sëyal la fekk suñuy wërsëg àndul le lendemain nga ñàkk loo am. Mm. xam nga boobaal bu dee intérêt ma tax a dugg ci yow lan laay def damay rocceeku naa ko delluwaat ñibbi sama kër xaar sa moroomu góor ñëw xale jigéen nga lan lañu tiktok waaye lan la way boo dee góor yàlla na la yàlla may nga am ay milliards et am jaba ju baax. jaba ju neex. waa loolu ñaar la xale bu saf la moo tax newul newul newul newul boo dee góor yàlla na loo am rek doo am jaba ju neex de. ñambe ñambe ñambe. bi nga jabar ju baax am guddeeg bëccëg ak tiset parce que mënoo jënd dara. ñambe bi nga waxee jabar ju baax nga jeexal wax ji. xam nga kan mooy jabar ju baax non jabar ju baax mooy koo xamante ne sëy na te yàlla tax ma ne mais sëyul ndax alal kër sëriñ yi nga gis si si dëkk bi yëpp amul kenn ku mës a may sa doom baadoo la amul am na solo bëggante dina nga dem maam ñu may doomam baadoolo amul. day fekk bëggantewul ak baadoolo. bu bëgganteeg moom ñu may ko ko baadoolo man kër kër mënoo faa génn ba gis baadoolo parce que kilim ngay dugg sa néeg kilim sàmblu kilim ku fa ñëw nga otom kilim ñu ànd bëggante looloo sëy waay. bu leen déglu ñoom ma ne jabaru si amaat dañ ko doomu si amaat dañ ko may doomu eh. Youssou Ndour nañu wax ak suñu mbokk ji doomu si amaat dañ ko may <laughs> doomu Youssou Ndour ndax lan ala ja des fa xool leen maam koo xamante mën na leen maam garab bu la sudd la may kar su la bëggee sonal dem ne ko vatan de sa appartement nekk ci loola saf jigéen baax na góor baax na liggéey liggéey sa bopp loolu loolu am na mooy xale jigéen ñi ñu amul nag góor ñi dem leen xool maam ca ca ca àll ba xool ñoo xamante ne mën nga jëf leen dégg ñoom loo am nga doy loo ko mais bu bëggatee sa xale xale ndakaaru yii ah da ngay am xaalis ayca bi ngi noonu waxoon naa leen ko xam naa ne nag eh, li nga xamante ne mooy temps bi daf ñoo dab rek ndax xam ngeen jàmm duñu doyal ci moom te moom yi la ñuy def bu ñuy def ñuy ruube waaye tamit li ci am solo rek mooy li nga xamante ne moom ngeen ci jàpp te mu mën leen mm-hmm. jëriñ ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax sëy yërmande moo tax ñuy wax ginnaaw millions yi xaalis bi yëpp am na ci solo mais sëy bu ci mm-hmm. la yërmande laluwu rek ku la may million amul la foofu lay commencé million amul la yërmande million yàlla nga ñu may bàyyi ma yeggali solo bi daal kontaan naa ci yow. ayca mi ngi noonu di encourager suñu mbokk yi nga xamante rek ñu ngi ci yoon boobu noonu rek di waaj a dugg ci li nga xamante ne moom mooy sëy di encourager di ñaanal aussi di wax ni kat yombul comme ñun ñi ci lañ bokk di ñuy ñaanal suñu bopp di encourager suñu bopp yàlla may ñu borom kër boo xamante ne am na am na suñu am na góor yoo xamante xam nga luy góoru njëkkante mm. góor njëkkante jigéen bu nekk moom lay ñaan yàlla góor njëkkante la may góor boobu da ngeen koy bàyyi beneen plateau laa leen ko wax góor njëkkante jigéen boo gis moom lay ñaan yàlla te buuju maan góor njëkkante la bu ko teew buuju maan yi dañ waxante dëgg ñambe bu ñu doon coof fi nekk di buuju di fàccee soxla ñambe ñambe ñambe je ne suis pas là pour décourager les femmes qui ont envie de se marier je ne suis pas là pour ça mais bu ñuy dugg ci sëy yi nañ xam bu baax lan moo ñu ci duggal parce que c'est pour le long terme nekkul loo xamante ne c'est du jour au lendemain nga génn na ci. ñaame daal loolu la ci tamit dagg na wuti keneen dem bato dem bato ko se. <laughs> waaw mi ngi noonu ñaame bu ñu tooñ très rapidement très rapidement ah. rek damay bàyyi Ramatoulaye mu tàggatoo euh, xam naa ne temps bi xoj nañu mm-hmm. Ramatoulaye te lan ngay tàggoo ak suñu mbokku internet yi. mi ah, ngi noonu man daal ñambe ruube na fi. Ah, mm, mm. def na fi lu ko neex. Mm-hmm. waaye man daal li may wax rek mooy bu leen ko déglu ñambe daal ruubekat la ñëpp xam nañ jikkoom <laughs> mi ngi noonu en tout cas j'encourage euh, toutes les femmes képp koo xamante ne. Mm-hmm. amagoo jëkkër na nga toog muñ te nga xam ne wërsëg bee ñëwagul waaye lu jot yomb ñi am aussi maa ngi ñaan yàlla ñu ñu ñu ñu ñu gën a fas jom daal nañu nañu nañu sëy ndax bu ñu royee ci suñuy tànku yaay ñoo noonu suñuy maam suñuy bàjjen rek. duñu mës a juum te xam mhm. naa ñoom ñoom ay sëykat lañ ay ay ay sëykat lañ sëy sëy kese lañ xam sëy kese lañ xam mhm. te sëy yàlla tax man loolu laa leen di ñaanal Aïcha am na solo noonu nen ngeen ko déggee mu nekkoon Ramatoulaye tey rek àndoon ak ñun ci li nga xamante ni mooy plateau bis ni ki tey njàmbe ruube nga ñu non tabafakala macha allah sax suñu seen plateau bis ni ki tey mm. tey dama bëgg a gërëm ci wax na maam Thierno Balde Thiano di nga xamante ne mu ngi nekk ci diwaanu Kolda nit ku baax nit ku yàlla may mm. tabaafakàlla maasa ni koo xamante ni am na ay ndongo mi ngi maam jàngale dina lislaam mi ngi maam xale yaa ngi fay wàcce kaamin mm. am na ay taalibe yi taalibe biir maanaam Kolda di gërëm nag Pasar sama xarit sama per mon per je t'aime totalement parce wax fa kàlla macha allah seexu seexu see seex Ahmadou Bamba mi école seex Ahmadou Bamba moo ko yor kenn du passé yal na yàlla dafa jàmm baax a baax di wax nag foofu foo ko yor foofu la mbuub di xoyom xoyom di gërëm ñëpp di gërëm waa Ouest Foire cat ba cat di wax nag ngóore ba ngeen laa yaa ko waxoon bëñ di sax maa bëgg ñu indi ko ci plateau waaw beñe yi tamit duñ ci wax ah, xale di lekk ci beñe di gën a yor forme mbër waxuma kenn loolu du ci débat wax yàlla kaasa allah ma gis naa ñuy yëngal <laughs> ah, yàlla jaam yàgg bu baax a baax ah. tabax fakk ah, a ngi seen émission te mm. ah, Roube Time je roupe. nous roubons. Aïcha mi ngi noonu am na solo loolu mu nekkoon nag suñu deuxième partie émission nag ñu daal di koy rek euh, jeexal ñu ngi àndoon ak yenn ci premier partie bi ak ki nga xamante ne moom moom mooy Pape Ousmane Cissé journaliste bu mag boobu maa ngi bu baax a baax di aussi ki nga xamante ni moom mooy DJ ndax tey ñoom ñoo doon partagé li nga xamante ni moom mooy première partie bi ak revue des titres commentaires yi di leen jox dig daje incha allah demain même heure restez sur Equivox TV. salaamaaleykum mbokki Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di am mbégte contentement tey nag ku gis sama toogaay bu yaanji bi nga xam ne ndaanaan kullu fàddilin laa seet si ki nga xam ne kenn dootu ko présenté nee naa la mooy xale bu juddoo ci atelier tailleur am deux ans ñu xoojal ko siso ba tax Sénégal ne ko loo ñëwul baaxul le grand maître tailleur laa seet muy xaadim création xale bi nga xam ne lu mu créé wul baaxul tey moom laa seet si waaye dinaa amal ak moom njàngat ak waxtaan bu yaatu boo xam ne dinañ ko fa def man ak moom dama koy bàyyi rek mu nuyoo ak mbokki internet yi nga xam ne ñooy seetaan Equivox TV rawatina seen émission bu mag bi di bis ni ki tey Xaadim maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog monde entier rawatina ñiy seetaan Equivox émission bu mag bi di bis ni tey maa ngi lay fay d'abord onze billahi mina shaytan salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi leen di nuyu waa Equivox TV di nuyu DJ Mo ak sa cameraman di nuyu àdduna di nuyu Sénégal donc di nuyu ñëpp mais di nuyu sama booy taalibe euh, xaadim création sopp sama yaay lu waral xaadim création sopp sama yaay. waaw li waral xaadim création sopp sama par exemple comme mun nañ ko tënk ci diir bu gàtt parce que donc dañu judd ci ñaw bi comme li nga wax suñu papa nekkoon tailleur ñu juddu dem daara ci tënk rek diir bu gàtt après ci lañ jógee foofu suñu xel nekkul ci leneen lu dul jàngi ñaw parce que ndono paa bi bëggoon nañ ko téye. te xam nañ ni mën na ci gis résultat donc loolu moo waral xaadim création bi soppi sama yaay bi sama yaay dama ko bëgg ba yamaloo ma ko dara c'est ça loolu la rek mooy xaadim création bi soppi sama yaay. xaadim euh, tailleur yi bëri nañ atelier yi bëri nañ mais lu waral koo wax Sénégal mu ne la xaadim création. waaw en fait comme ni nga wax rek tailleur yi bëri nañ ay professionnels ñoo ci nekk mais man système bi ma jël bi ma jël mooy fonk rendez-vous d'abord. mooy sama premier système et euh, lu ma la wax rek jàppal loolu moo nekk ci ci say biir yi wax dégg naa nga ne sa papa moom tailleur la woon. Mhm. kon yow métier mi da nga koo donn ci deret ba pare dem euh, euh, gën ci sàkkuwaat xam-xam. dafa may sama deret la nekk en plus dama xaalisu xaalisu xaalisu daal lañ la ah, ngénte <laughs> ay ca xaadim kañ nga commencé ñaw bi. donc année bi ma tàmbalee jàng ñaw 2007 2007 laa jàng ñaw 2012 par la suite ci laa fini sama jàng ñaw après donc ci laa génn def quelque embossement xam xam gën a xam affaire yi pour inspiration bi gën a dugg comprendre nga après léegi ginnaaw bi ci laa ubbi sama atelier bopp nag ñaata atelier nga yor ak ñaata nit nga embauché. non pour l'instant maa ngi ci <laughs> maa ngi ci ñaari place mais embauchement euh, na xaw na yaatu tuuti quoi. nit. à quinze <laughs> ah, <laughs> waaw. ah macha allah bëgguma kii macha allah macha allah. donc Khadim ñu gis ne très sincèrement mode ak tendance bi daal da nga ko téye sa loxo lan mooy sa secret. waaw secret bi mooy ñëw lu rafet ak sénégalais yi. donc ki client bi ñëw ci yow pour pour. Euh, pour euh, di ñawlu dafa bëgg lu neex lu xam ni day yëg boppam parce que sama papa dafa mosa mosoon wax ni ma xaadim ma ko mbàkke mu ne moom li man mën ñaw ma ko waaw mu ne ma la neex borom ñaw donc loo mën a mën a ñaw te ki ngay ñawal sentir ci boppam gis ci boppam parce que professionnalisme des fois da ciy ñëw nga nga jox nit rendez-vous rendez-vous jot doo ko ñawal dama koy dégg tailleur yi wala yow man nag suñu borom dimbali na ma en du ndam quoi mais loolu moom musuma dal musuma arrivé commentaire yaa ngi noonu samay client partout dans le monde nekk nañ fépp ah. am na ñoo xamante ni musuñu gisee lu dul ci ci ci imagine imagine dañ may envoyé yenn somme xaalis yu bari dañu damay liggéey ñoom partout dans le monde nag donc loolu moom ñoom ñoom laay bàyyi après ñoom ñu commenté. non du par hasard nag moo tax ma jël la parce que gis naa ne fépp foo dem muy Sénégal muy bitim réew. koo wax mu ne xaadim création man daal xaadim bëgg naa xam yow ban butéel nga laal. non <laughs> ay donc daara rek mooy donc nit ku nekk euh, nit doomu aadama bi ci lu mu bëgg a am nday ndam lu nekk faa mu nangoo jaar ci yoon bi rek loolu la rek loolu mooy l'essentiel bi donc affaire yi am na yoon ah système bi bariwul ko en fait gëm-gëm la rek liggéey bëgg ko boo ko bëggee appelé le le moom waaye xam nañ ko ah. mais xam nga lu ma jaaxal. xaadim hmm. doone fii la mu ne. ndax xaadim bu la ñëwalee ñëw góor nga ne déedéet lii mooy mëninam mu ñëwal la ñëw jigéen nga ne li maanaam yow yow lan la lan mooy sa problème non dama ko jàng dama ko jàng dama jàng ñëw góor ba mën ko bañ war ma ci ber pour ma dem liggéey pour am xaalis comme ni ko gars yi di mm-hmm. parce que xam naa ëllëg incha allah bu jàmm rek di am lan laa war a représenté ci réew mi mm-hmm. donc loolu moo ma dem jàngi jigéen comprendre moo tax su ma la ñëwalee ñëw góor la lii mooy sama fort su ma la ñëw jigéen nga ne lii mooy sama fort ci côté yëpp nag a ah. muy wàllum broderie ak coupe simple lépp lépp mais tamit mais tamit da ngay da ñëw ay tenue yu rafet yoo xam ne tenue classe classique la quoi yu rafet. Mhm. gis naa ko nga ñëw ko. waaw mais c'est normal parce que sénégalais loolu lañ bëgg ñoom ñooy chef ñoom ñooy buur clients yi ñoom ñooy mieux donc lépp lu ñu bëgg rek dañ leen ci fekk si ginnaaw bi fi xam-xam bi nekkee ak euh, jom jee fulla gi nangoo liggéey d'abord loolu mooy loolu mooy l'essentiel bi rek c'est ça quoi. Euh, Khadim création nekk euh, ndaw. Euh, boo xam ne tubaarkàlla mu ngi yëngatu ci ci métier am euh, waaye nag di ci bay waaram ndax mës nga am problème ci métier bi. problème non problème nag peut être du ñàkk ay conséquences ay conséquence par exemple mënul ñàkk ci liggéey bu mu mën a nekk mais problème bu tax ma may tee nelaw daal non musuma ko fàttaliku quoi parce que comme li ma la wax rek indil ma ay millions wala lu mu mënti doon du tax ma wax la loo xamante ni gëw ma ko wala loolu loolu dëgg. donc loolu mooy mooy l'essentiel bi donc li ci des yëpp nag du tax ma ma ma ma am stress daal waaw parce que amour bi la quoi bëgg-bëgg bi la waaw c'est sax waaw ah, ça se voit lan nga mos a dund ci Taïru la neex. lu ma neex année bi may fàttaliku mooy année bi ma njëkkee ñawal sama yaay jëndee ko ci ah, waaw maa ngi jégalu bi ma bi ma li ma gën a marqué euh, année bi ma njëkkee ñawal sama yaay. jël xaalis jëndal ko tisi ñawal ko donc dem jox ko xolam sedd mu ñaanal ma ñaan goo xamante ni keroog yóbbu na ma fu sori nag donc loolu moo tax Khadim création sopp sama yaay loolu ci la bokk bëgguma xuus si ay waxam dama ko bëgg ba yamale wu ma ko ak dara waaw loolu daal gis naa que ni lu ma lu mu marqué la ci métier. ndeysaan. Euh, instant bi xol bi dem na fu sori euh, <laughs> xam naa ne nag euh, laal naa laal naa laal naa fi ma war a laal <laughs> xam nga ñun ñoo yem ñun ñoo bokk faiblesse dañu bëgg sunuy yaay. dañu bëgg sunuy yaay. ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo bokk faiblesse bi. léegi tey yow Khadim en tant que maître tailleur métier bi bëri nañu ciy dugg tey ban conseil nga am booy jox mooy jeune tailleur yi ak aussi ñi nga xam ne dañu jàppe seeni bopp ay ay ay te seen seen formation demeewul noonu. waaw tamit métier bi lu ñuy jàng la da ngay jég da ngay jég da ngay ko rek ni ba kii da nga koy jàng d' abord ba mokkal da nga koy tarbiyoo d' abord ba pare léegi nag bu amee mhm. li si jiitu mooy comme li ma la wax secret bi du lenn lu dul ñaw mu rafet ñu apprécier luñ la luñ la wax nga jéem a def loolu loo xamante ni bokkul ci bokkul ci métier bi nga jéem ko ci génne métier noble la ko en fait comprendre am na ci yu bari yoo xamante ni daal maa ngi ko ci seetlu mais j'aime pas te képp ku bëgg Khadim création ñëwal la nan lay def. waaw da ngay contacter numéro yi rek am na fa am nañ Facebook am na Instagram numéro téléphone bi aussi am na dama xamul ndax da nga koy waaw waaye ñu am amoon numéro téléphone bi 77 la 145 16 10 donc boobu moom wër na. Euh, numéro bi ci des 77 la 013 14 78 bi ci des 402 euh, la 87 55. nan fan lañ la war a mën a mën a fekk. waaw maa ngi HLM maa ngi marché HLM donc boo taxawee ci arrêt bis bi juste rek di nga euh, jàkkaarloo ak tableau bi xaarim création bi bu dul lool tamit ginaaw yi ñu ngi bopp ñaar tali hmm, ci ginnaaw jumaa wu tukulóor bi rek foofu tamit am nañu suñ beneen place bu nekk foofu. ñu ngi lay jaajëfal di rafetlu euh, entretien bi ñu am ak yow dañ lay bàyyi rek nga tàggatoo. waaw d' abord maa ngi leen di jaajëfal ci ñëw bi nga ñëw fii seet si ma vraiment kontaan naa trop parce que marqué na en plus euh, émission yu bari def naa ko mais bi moom marqué na ma quoi marqué na ma en fait parce que question bi mu posé daf ma xaw la donc di nuyu di sant ñëpp ah sama famille mais rawatina waa Kaase dina ay xale yu ndaw yoo xamante ni bëgg nañ liggéey bi am nañ amour bi donc ñooñu aw ma seen fay waaw di di sant ñëpp daal di sant waa Sénégal yëpp góor jigéen mag ak ndaw mais waa Kaase maa ngi leen di beral seen cant boobu. Euh, fi may tëjee rek mooy Xaadim nekkoon ndax yaa ngi xalaat ay action sociale jëm ci daara waaw bien sûr parce que euh, dama ko bañ ba deuxième machine bi ma jënd année deux mille quatorze deux mille quinze deuxième machine bi ma njëkk a jënd donc dama ko jënd pour ñoom parce que événement bi dara am jot du ma am lu ma am lu ma sol ma gis samay morom ñu leer ma ni ñuy gënuñu ma mais peut-être nattu la boo xamante ni suñu borom moo koy tege yàlla teg ma ko donc mënu ma woon xàmmee jour tabaski ak jour korité comprendre par la suite euh, may dem di dem di dem ba yàgg suñu borom dimbali moom lii parce que euh, des fois daanañ ma may tissu sax pour ma dem di ko ñawlu mais ñu ci bari bon soo su ma la naan jox sama ñaw duñ la duñ la duñ la duñ la concerné comme comme client comme client quoi comprendre duñ la duñ la duñ la duñ la duñ la duñ la euh, considéré comme client comprendre mm-hmm. parce que xaw ma na laa ko mën a tuddee en fait léegi damay bàyyi ba jour tabaski wala jour korite su ma ñëwee di damay fekk kooku tëj dem donc par la suite euh, tabaski bu jotee wala korite damay def yu yu bari daal yoo xamante ne par exemple <laughs> bëgguma ci nekk di di di cité daal mais ñoom xam nañ ni taalibe xam nañ ni dañuy gis Khadim Création seen bopp bu baax a baax a baax baax comme li ma la wax rek su ma nee la jënd naa leen machine boo xam ne spécial pour ñoom la rek donc la reste jarul leeral quoi. Mm-hmm. c'est